Euh, nekk na feebar boo xam ne nit ñi dañ koo xaw a bari la lool ci réew mi te la ko indi lu gën a bari bokk na ci pënd wala ngaj moo xam gu naqareel wala gu neex ndax am na ñoo xam ne cuuraay sax bu leen xeeñee wala gët maanaam parfum bu neex wala bu naqari walla ngat gu naqari ñu daal di daanu ci jël yooyu li ñu bëgg nag mooy wax leen naka lay dikkee souvent ci biir nit ñi da lay indil jafe-jafe nooyi ñii mu indi leen sëqët ba dëngalu bu baax mu metti lool ci seen dund di xiix mel ni dañu ginaar lay doon wala seq wala muus moo nga xam ne mu ngi def noonu poussière yooyu bokk na ci poussière bi jóge ci ventilateur xam nga noonu muy wëndeeloo ventilateur ci ginnaaw gi day am pënd ci kanam gi am pënd te néeg bi lu mu set set am na pënd te pënd boobu bu ubbeekoo nit ñi bi ko jël ci biir xëtër bari na lu leen di indil difficulté am na ñoo xam ne bu ñu sangoo ba génn commencé ti soli baqate yi di génn bët yi di jooy nit yi soli ba mu metti lool wax naa la ko ñii bu ñu nekkee ci foo xam ne cuuraay moo fa nekk ñu xëj am na ñoo xam ne lii di li ñu yooyee yow te di ko pousse pousse maanaam bomb yi nga xam ne moom lañu koy reyee bugguma tudd benn dinay doon loo xam ne itam dina leen del am na ñoo xam ne pënd bu bari wala xet eh, goo xam ne dafay jolli di jolli ci eh, coolo mën na leen ko def kon eh, loolu lu bari lay indi ci xëtër ñoo xam ne ñu ko jëlee ci feebar bu ñuy wax bronchite ñi jël ko ci alvéolite ñi jële ko ci bronchiolite ci xale yu ndaw yi mais wante nag wante nag li ci gën a bari daal mooy def lay def ay jël saqat ci sool yi xëj ba doo ci mën dara a ah, loolu nag faj ko day jafeñ am na nag ñu bari ñoo xam ne naan maa ngi faj asthme waaye kii nga xam ne bu nekkee ci garab yoo xam ne pëdd ba pëdd garab gi ni mu amee pëdd ci nen lu maanaam jaune d'œuf noonu la amee ci garab yi ñu ko wax grain de pollen bu ñu duggee ci foo xam ne dafa bari léeg-léeg bu ñu ko nooyee mu ay jafe-jafe beneen nag garab yu koy fii faj bokk na ca moom euh, garab gu ñuy wax xurel ñu koy boole ak yeneen xeeti gët ba ak i garab yoo xam ne da koy faj comme lu mel ni benn bu ñuy wax petit vera petit vera moom tam as garab su ndaw la loo xam ne dañ ko fi am bari na lool ñi nga xam ne ñu tàmbalee def yaaf ba mu mujj di nekk asthme ak yu mel noonu garab gi def cee ay lool. bari na ñoo xam ne ñu koy boole def ci ay ngi gis def ci ay yeneen xeeti garab yoo bar xam ne ñiy def orel xam nañu loolu dañ ci defar ay euh, mbir yoo xam ne boo ko xeeñoo suuru def ci sa bakkan say nopp sa bët bu ñu tasewee mën na la dalal ay yàgg lool ba ba nga dellusiwaat mais li nga xam ne moo ci gën a metti nag moo li nga xam ne ñu dëkk ak tuxkat kii tux kañ man waxuma ko waaye moom ka nga xam ne moom lay xër moo gën a metti moo tax ñenn ñi di wax ne am nga sa bëgg-bëggi tux waaye amuloo wara a xër ñi si des tux moom bari na ci lool ci euh, pon mi ñu ngi koy defee di indi asthme yooyu ak feebaru xëtër ah ñi nga xam ne dañuy liggéey ci chimie ñii di defar euh, poudre ñi di wol ci machine wolukaay yi ñii di daw ci oto yi dawal ci poussière maanaam rang-rang yu métti yooyu nga xam ne doy fa daaji euh, ndigg pël yëpp sax d'ailleurs ak joolaa yi seen euh, euh, piste yooyu bari na lu mu leen di dal surtout chauffeur rek apprenti yi lang ci gannaaw ñooñu itam bu leen dalee dina xaw a métti ndax xëtëri day tilim boole ci bu ko defee nag as mu nekk lu naqaree faj gi dégg na nag ay mbokki pël yeeg joolaa yi di wax ne man da ma faj asma ma faj asma da ko dalal wedduwuma leen de ndax lu bari dañ ko def am na ñoo xam ne naan boo jëlee saw gaynde mën na koo faj ñu ne boo jëlee lii mën na koo faj bari na am paj bari na ay fajkat dama ne bari na am paj mooy ni ñuy koy faje bari na ay fajkat ah ñëpp nag it mag leen di encouragé suñu booloo waaye nañ lëkkaloo ak waa kër docteur ba boo demee ñu defal la diagnostic diagnostic bi mooy dañ lay defal rajo wala ñu defal yeneen yoo xam ne mooy mën a génne feebar bi ndax feebar nag bu laqatoo dal di mën a rey léeg-léeg nga gis ku wax ne dama amee feebar bu ñuy wax asthme fekk na am na tuberculose tuberculose mooy feebaru saxat su bon si ndax jooju li koy indi sax lu gën a bare nit dañuy yéex a dem kër docteur mais nañu dimbale xale yi ci tux mi nañu dimbale xale yi ci cuuraay bi nañu dimbale xale yi ci ventilateur loolu moom maa ngi koy dénku ñëpp ñu nga xamante ne ñu ngi ànd ak xale yu ndaw yi mag ñi rawatina tuxkat yi nañuy moytu tuxkat

dafa dafa tëju lu tëju obstruction loolu nag itam bari na garab bu nga xam ne dinañ ko ci faral a ute te muy garab bu xaw a doy waar ñu koy wax kàddu mun nu maa wax nag naka lañ ko defee bu boobaa kat ndax damay bañ ñu wax ne waa ji dafa ëppal lu ma xam di koy wax ndax am na ñoo xam ne seen dépense da ci aju te boo waxee ni euh, nii lañ koy defee duñ dem ci ñooñu kon ñooñu sen dépense da daal di wàññeeku seen sos tuuru te seen te seen ñankatang dal di dang kon li nga xamante ne nag moom laa leen mën a wax a ah, kuy dem na nga dem ci fajkat moo xam que docteur la wala nga dem ci ki nga xam ne mooy maaman maaman loolu daal boo ko defee a as mu mën naa dandu lu yàgg ah ñuy wax ne mën nañ koo faj it weddiwuma leen mën nañ koo faj waaye man day suma ma koy def na la dalal ba mu dal bu baax a baax man nettoyé la sey xëtër def la loo xam ne moo am xër bi nga xam ne moom la loolu di def ma wax la ne dal jëfe nii man nag asma naa de waaye suma faj dafa def loo xam ne faj mi neexut ndax damay faj tey ba xawtan rek bàyyiwaat léeg-léeg it ma dem kër docteur xam ba ñu may defal ay ay ay ay ay ay ñu koy wax li gars yi da xam ne masque waaye nag loolu itam maa ngi ñaan yàlla mu xaw a soriyaatoo lool waaye lal ku mu dal na nga dem benn defal la loolu wala nga dem ci ñi nga xam ne ñoo lee mën a defal waaye na nga fexe itam ba am diagnostic ba xam li la dal dama asma rek ngay dégg koo wax saxal ba bugg a fekk ne tuxkat la bu bàyyi te cigarette boo ko bàyyee mën nga koo bàyyi ñaar fukk at te du dañ ci yow ndax fa mu nekk ci lii nga xam ne moo taq ci biir euh, euh, cigarette soosu walla poon moomu day def loo xam ne fa muy toog du fa gaaw a jóg def naa ne loolu bu ñu ko xamee xàmmee ko ndax xam dafa toll ak xàmmee moo indi xam-xam dafa xam xàmmee olof nag yàq ko ne kii dafa am xam-xam wax na leen euh, astuce mais léegi vertu laa leen bëgg a dikkal boo xam ne asma dana la te demoo lëkkaloo kër docteur mën nga jël bu la jegeñee li nga xam ne mooy sa limon àndal ko ak tuuti xobi xotti butéel àndale ko ak loo xam ne ba tey mooy euh, garab gu ñuy wax ñaawli di mu la ko rhododendron boo amee lem nga def ko ci boo amee nag tuuti euh, foo xam ne mën ko faa baxal nga baxal ko ba mu ñëw nga jël cololi di ci suuru di nooyee ci sa gémmiñ génne ak sa bakkan nooyee ak sa bakkan génne ak sa gémmiñ boo ko defee ba nga xamante ne sa tàng na nga jël ci demi kaasu ndekekaay dal di koy naan waxoon naa leen nga def ci benn garab bu ñuy wax vitania somnifera ou vitania somnifera ci baat bi la waaye loolu bu ko defee boo ko naanee di nga nelaw nelaw bu neex bu la demee ba ëpp la doole na nga dem kër docteur ñu seetal lu ñu la defee waaye comme demee loo ko docteur daal jëm ko def wala nag it dina baax nga jël soble soble bi boo ko jëlee nga xar ko léegi dal di commencé yëy boo yëyee naan ndox kooku itam dina ci def loo xam ne jox lañ ko ci ah, am nan nag da wax na la ne bugguma automédication moo di ngay fajal sa bopp mën ta ñàkk ndax it loolu yëpp ci faj nga bokk am na ñoo xam ne ñu faj ak kénk le ba ñi di faj ak rat am na nag waxoon na la ne dafa ñu wax ne dañu ko donn weddiwu man donn li donn li weddiwu ma ko waaye li gën a wóor moo dinañu fexe bay muslu ci pënd bi muslu ci yenn colo yi muslu ci yenn nget yi a am na ñoo xam ne nget mën na ko faj moo tax léeg lek koo xam ne oto mbalit bu sarse loo xam ne euh, xeeñ na loolu mën na ko romb sax asma bi dañ mais du fekk ne li jik kenn ku ne jik naka ca des kii ngat gu naqari da koo daaneel kii ngat gu naqari da ko yëkkati kii ngat gu neex da koo eh, yëkkati daaneel ka ca des kon loolu daal mooy li nga xamante ne moom lañ leen bëggoon a indil ci mbir mi pour mu aw yoon alors jërëjëf ñu leen tàggu encore te di leen ñaanal déglu beneen jamono di leen jël siwaatal ci beneen astuce ak vertu